leen sax mashab ma ngeen di dund ñun nañu yem ci Serigne Touba te mooy mashab bi ñu indi muy Malik yi lu leer nañ la sunu maam yi dund ci sunu bàyyi dund ci ñu fas yéene cee dund wat fas yéene cee yar sunu doom yi te Serigne Touba moom mi nga xam ne li taxoon mu ñëw lu may yeesal diine lislaam te yaakaar naa li mu ci yeesal ak yoon wi mu ci wane doy na sëkk ci ab taalibe diinun siwa islaamihi la yuhmadu xindal ilaahi wa bihi nu jaddidu kon ku am kilifa gu tol noonu waroo dem di leneen ci njeexte lii mu jot a andi ay seede ci xalif général des mourides cheikh mahamadul muntaxa mbàkke bachir mu jàpp ne ku ñu war a teg ay gët la ngir roy ko ci aw doxinam rawatina na kii fi nekk tey di al almujahidu akbar sëriñ mun muntaxa al basir julit bu waxuma taalibe yi waaye julit yëpp doy na référence ci moom moom day li alquran wax fa xalafa min baadin xalfun adaaw salaat wa tabaw sahawaat dalu ko fa sawfa yalawna xëy dalu ko ndax lan sànkul julli ajjuma a ngeen gis ko mag la moo xam ne fi mu tollu ci at mu yor bantam bi génn mënoon a toog këram ndax kon daan ñu wàcc na ko waaye gis nga ko ma ngi cee ñokk ko ki di wut lu baax di wan nit ñi ni nit dafa war a jaamu yàlla ba keroog mu fi jóge kooku nag kon ñëw fi rek ngir moom wan diine ginnaaw wala mu wan len weneen jàngane moo xam ni mu sëriñ tubaa tegoon la bañ na ko ba soññeem ci sëñ tubaa dafa am lu ciy làqatu ndax ku ñëw dalay wax rek demal ci sëñ bi sëñ baa ngi sëñ baa ngi li mu bëgg a wax mooy sëñ bi mooy lépp rek mooy diine mooy lu baax moo di njub mooy lépp soo ci demee def ko seetu di ko xool li nga bëgg lépp daa ko am kon nag mbokk yi nañu delloo si sunu bopp xam ni nit ñun ay taalibe lañ te taalibe bu amee kilifa gu doy kilifa tam jox ko boppam waru koo sàkkal yoon wu muy jaar te ki ñu am tam mu nekk fi te sëriñ Muntaxa doy na sëkk sëkk ci ab julit wala ci kilifa ndax bu ñu demee ba bàkkaar yi noonu lañ ko mën a waxee bàkkaar yi bari mu yëg ni nit ñi dañoo war a tuub wala ñu dem ba jàpp ni dañoo war a ñaan suñu borom da ngay gis mu woote ni nañ ñëw sikkar tudd tudd suñu borom bi jàng alxuraan jàng xasida ndax loolu xam na ni am na lu muy def ci nit ñi ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fii te ànd ko wér. gannaaw bii ci la daal di ren di am xaram kem ni ko diine daal di santaane daal di ñaanal mbooloo mi ba déwén ak jàmm. Cinevision.com la crédibilité notre credo senevision.com kumpa tagona